Euh, il a un dans le public muy suivre kii dans le public kii ne ko ñëwal seet sama fii ñu di ko accuser de pratique de médecine privée mhm. pratique illégale de médecine privée te takkal ko <laughs> ba bëggoon aussi mhm. moom moom dafa bañ après si lañ ko may provisoire mu mu dem mu dem médecin aussi <laughs> euh, kii Boulos mhm. présent il se débrouille moom ak Sénégal yi xam nga ñun sunu ama complexe bi ñu am par rapport ak Brésil entre guillemets au blanc et puis sunu naar yi tamit mhm. système bi ñu am ba ba mën a maîtriser gouvernement bi mhm. mais ba léegi kenn mënatu ko mënu ko arrêté mhm. mais mais mais mais mais Sonko tey ji mi nekkoon fii ah. ñu gis fii niñ ko barricadé woon pour nga jàll fii sax dugg ci ah, dugg ci kindi bi jafe jafe-jafe la woon waaw ay ñoom ay waa këram ñoo fi ñëwoon ñoo fi ñoo fi feesoon quoi ñu ko doon seet si ak yooyu noonu waaw ñi koy seet si parce que ñoom dañoo am ay horaires yoo fii dugg ay yoo fi dul dugg xàmmee kii faju ak kii dul faju bon comme ils avaient un protocole avec des personnalités yu war a ñëw seet si bon ils avaient monté leur système d'ordre moom laay tooñ ma leen <laughs> Pastef am na ministère de l'intérieur am na ministère de la santé lu ko dese ministère des finances danaa ko parlo woon ñu leen di attaqué aussi donc loolu laa leen di tooñee est-ce que Sonko n'est pas déjà président mais te mais loolu nga wax ni tey jii ñu bëri nañ naan docteur bu amul carte Pastef tamit day day day béggee waa Pastef <laughs> mais ama aw ma ci droit est-ce ma droit am carte Pastef sax. lu tax aw ma droit am carte Pastef. question est-ce qu'un citoyen comme moi. Mhm. n'a pas droit d'avoir une carte d'un parti. mais dañuy xalaat ak liggéey bi ngay def comme ñëpp ngay recevoir ak. yu ni mhm. c'est le médecin qui fait son travail. et c'est le euh, le Sénégalais et l'être humain Babacar. so loolu la ñu doon tooñe bu ñu demee boîte de ñu ne docteur a ngi fecc docteur a ngi fecc. waaye duutu docteur Babacar ñaa mooy fecc. <laughs> Ah, waaw bu njëkk dañ lay jéemee. écarté ah, on peut rester seulement sur xaw euh, ma euh, le noble mais dañu nekk ay nit tout le monde. Mm-hmm, mm-hmm. ah non moment on est médecin wala moment on est on est une personne comme tout le monde. Mm-hmm. si il devait prendre un parti j'ai le droit de prendre un parti. mais actuellement jël nekkoo ci benn parti. politique benn parti civil la nekkoon mooy jàmm gox yi. bon quand waaw waaw gox yi mooy élection. Euh, non municipal bi. municipal non pas municipal euh, député bi. législative bi mooy li su ñoom Fadel Baro bi. mooy li su ñoom Fadel Baro bi ah. bon moo tax mu jóg. mooy Baro bi. waaw ah, mooy Fadel Fadel Fadel Baro. waaw Fadel Baro la. ok ñu recalé leen parrainage moo tax mu jé mu jéewoo leen ca dem. Mhm. mais yaa ngi xalaat euh, dugg ci politique wala nu mel. defoo politique. def naa ni may defee nii. Ah, bu ma mënee ma dem dimbale ay manifestant bu ma mënee ma dimbal dimbale ay waa Touba waa Tivaouane. Mhm. bu ma mënee ma dem sama dëkk jàppale leen euh, dugg ci nag yi dugg ci xar yi dugg defal leen ay jardin parce que foofu benn pompe bu ndaw da ngay jënd mhm. benn famille complet mën ci lekk man ci naan. Mhm. parce que ndox bi dafa nekk nii euh, ndox bi nekk nii. Euh, ok docteur sa diggante ak Ousmane Sonko lan la. Ousmane Sonko mosuñu gisee. même mu fi nekkee. mosuñu gisee. yéegoo bu koy xoolee de justement son organisation médicale. Mhm. Euh, médecin médecin si moo moo dama leen defaloon benn bureau sax. Mhm. ñuy organiser seen i affaire balaa dem nuyu leen leen naka naka Sonko ñu jox ma ay nouvelle ma leen euh, est-ce naa ko gis ñu ne ma day neew bés boobu mhm. ah, dugg na fi ba gënte gisoo ko. <laughs> loolu moo jaaxal ñu bëri. ja nu si jaaxal nañu bëri en tant que médecin chef war naa ko consulter. ça c'est pas dans une médecine dans une clinique privée. doo venir avec ton médecin. Mhm. avec tes médecins même moom sax loolu la mujj def naa ñetti médecin la fi indi. sans compter ñaari médecin yi nekk xam ñooy comité médical am. Mhm. sans compter les deux infirmiers qui sont comité médical. perfusion ñu ñuy tooñee tamit dañ ko dindi xaw ma dañ ko tappale c'est pas vrai c'est que matériel médical am yëpp dañ koy traité dañ ko sànni ci poubelle. j'ai pas compris kon perfusion bi ñu doon wax. nga ne dañ ci dañ ci pare mais bàyyi ko ci à côté de lui. Mhm. parce qu'il a une équipe lu tax lu tax <laughs> libaas dañ fi dañ fi bañ a bàyyi dara dañ fi bañ bàyyi dara da nga fàtte ñu ngi wër ADN ma mhm. na ñuy wër ah, bi ñuy doon wax naan perfusion amul cathéter ak yu ni mel ñu pare defal ko mhm. mhm. a ñëw jël loolu yëpp ci muus pour seen bopp ah, mais boo leen fàtte boobu fekk mu ngi duggoon dimanche defe naa. Mhm. benn vendredi la dugg benn jeudi la mhm. euh, aussi lu bari dañ fekkee ne tànne tànne na def conférence. ok ñu arrêté perfusion yi di xaar équipe bi ñu ñëw récupérer perfusion boobu. pour euh, pour traiter. Mm. kon boo fekk na daal génn génn moo ci desoon quoi moo tax ñu ñu ñu kii ko mm. ok mais image suma assistance ci mbir mi dans tout ça. am na ñu a am na ko bëggoon a yàq. waaye mm-hmm. uh, ànd sottiwul. Ah. côté côté côté uh, malade yeeg yooyu. waaw man maa ngi gis uh, nit ñi ñaa ngi ñëw moom <laughs> maa ngi gis nit ñi moom vraiment. dugg nga léegi bi ngay dugg defe naa gis nga koy nit. salle mm-hmm. d'attente bi fees ñun yàlla ñu bëri xamuñu urgence bu mu yem. Mm-hmm. xam ñu ngi liggéey ak pétrolier actuellement. ah bon amul actualité bu nekk mën a nekk Sénégal te bokkuñ ci. Ah, aéroport AIBD bi ñu ngi ko liggéey dix ans bi mu laa taw bi ah, terre bi ñuy dawoon nii dañuy yoreel xaalis sax. nekk nañoo ñoom pandant cinq ans di leen jël en charge am na usine de ciment yu fi nekk yoo xam ne ça fait vingt ans ñëw leen di jël en charge BRT bi nag yéen ngi ci non BRT moo bokk bokkoo leen ci terre bi ngeen bokkoon mhm. ñu koy defar mbaaw la woon ay kii mhm. bon les ñoom bu ñuy ñëw balaa ñuy installé wu dañuy laaj d' abord les les normes médicales mhm. ok hmm? mënoo jël benn euh, ouvrier turc nga yóbbu ko nga yóbbu ko fan mu tudd mbaaw ah amul hôpital dara nga ne ko toogal sunu ambulance yi ñooy ñëw remplacer hôpital bi avec l' tout l' médical qui est nécessaire bu leen dara jote ñoo yóbbu leen. Mm-hmm. ouvrier yi liggéey tamit sunu médecin nekk foofu di leen di mm-hmm. <laughs> jëm pour yàq. bu fekkee cabinet bi rek la wala hôpital bi rek. Mm-hmm. déjà moom mënuñ ko yàq sans compter nag am na yeneen activités yu ñëw. amoo amoo amoo loo ci tiit daal ci image loo ci tiit. <laughs> mais déjà jeexal na. <laughs> yëkkal naa te suma defe naa yéen ko moom. Mhm. suma xam nga lu mu teg lu mu teg. Mhm. sama ñeen sama ngeen di wax. waaw ñun léegi suma la ñuy wax. Mhm. sama sama assistance. kooku war ma koy yàq sa kanam. yëfu yëfu yëfu ñëpp la boobu ñu def ba nit ñi cotiser. parce que bâtiment bi sama papa yoru ko sama yaay yoru ko. <laughs> nu ma defee defar ko. les Sénégalais ñoo ko defar d' ñu jël ñu ko defar ko nekk Dakar nekk Saint-Louis nekk nekk Saly. Euh, Touba moo ci des. Mhm. ñu yàlla euh, dañ jàpp ne nag euh, buñ gisee ñu lay kii dañ jàkk ne docteur Babacar Niang daal waaw Sonko la àndal moo waral nag mi am yenn yoon di ko kii kenn. même bu ma mhm. <laughs> mais docteur dawoo dawoo bakaar comme ni ko xale di waxee. <laughs> mais mais j'ai eu le droit d'avoir d'autres cartes de, de membres d'associations sportives. Mhm. de xaw ma d'ASC am naa droit lu nekk. wala carte daayira sax. ah mu ne carte daayira lu neex mun nga ko am. <laughs> mu la ah, moom ko defoo mënuñ ci dara. Mhm. <laughs> léegi nag moom la doon benn collègue mu ne ma li ngay wax day tax di ma ne ñuy voteel député yi nekk bari assemblée. Mhm. ñooñu mere nañ leen.